ci témoignage bi. témoignage fait témoignage moom la. kii nii. Uh-huh. ndaw see ñu rendi fële ca Pikine. ndeysaan ka ko rendi. Uh-huh. waa uh-huh. kii di wax mbokkam la. dëgg la waaw. mbokku waa ji waa la. dafa am témoignage bu muy def ci waa ji. ndeysaan waaw parce que soo gisee temps yëpp mbokk ñee ñooy wax. mais mbokk waa ji am na ko ma ci tajeel ba waxtaan ak man. am yu ma wax ci waa ji. ñu dégtal ko askan wi ñu ñu ñu ñu déglu. asalaamaaleykum Ndoye Bane man dama ñëwoon pour témoigner ci meurtre bi nga xam ne amoon na Pikine muy xale bu góor bi nga xam ne dafa rendi mère bi jam doomam euh, ñu ngi massaw waa kër googu di leen si gën bu baax a baax ndax ñun ñëpp ñoo bokk naqar googu ñun ñëpp ñoo bokk Pikine su doon suñu sago loolu du am bay am ci suñu njaboot ndax xale bu góor boobu def loolu sama xeet la sama mbokk la sama rakk muy xale boo xam ne tamit su ma jëlee téléphone di wax bay sañ a témoigner mooy suñ ma woon sax ma teg sama loxo wax li ma ci xam su dee dañuy def peine su leen neexee tàmbale ko ci moom waaye nañu xam ne nag innocent rey na xale bu baax rey na xale bu dul tux du naan amul fréquentation bu bon rey na loolu nag la yàlla dogaloon ci jëwam nit mënuñu koo dindi nit mënu kaa dindi ndax meer boobu mu rey meer boobu féete na ko fu ne meer boobu defal na ko lu ne bàjjanam bu bokk papaam ndey ak bàyyi moo ko jox meer bi pour mu dawalal ko te bàjjanam googu xaritu meer bi benn bakkan la te ko jox meer su ko leeroon ne kim koy jox day ëlbatiku rey meer bi wala dina fa def lu ñaaw du ko ko jox ndax borom jom xale boobu nag du siggi xool nit xëy na nag def na loo xam ne moom xamu ko parce que trois cent mille yooyu jógewul euh, famille boo xam ne ay baadoola lañu trois cent mille yooyu su ko laajoon ay magam ñu jox ko su ko laajoon bàjjanam mu jox ko su ko laajoon nijaayam mu jox ko su ko laajoon maire boobu mu rey maire bi jox ko loolu ñëpp seede neen ko loolu ñëpp xam neen ko waaye nag comme waxoon na ne dina indi trois cent mille pour warugar trois cent mille matul gis na ci armoire maire bi xaalis mu ne naa dem sàcc xaalis bi waaye bi muy dem li leer ba leer mooy paaka boobu mu gànnaayoo woon du pour rey maire bi moom moo ko tax a dem daf ko yóbbu woon xëy na pour su dee am na lu muy dajji mu dajji ko su dee am na lu muy ubbi mu ubbi ko waaye pas pour rey maire bi ndax maire boobu fu ne féete na ko fa ngoram nag maire bi jàpp na ko gis na ko xëy na mu bañ maire bi yuuxu ñëpp xam ne moom daa doon sàcc maire bi moo tax mu def loolu mu def waaye ki nga xam ne dafa rey ñu indi la polisu Pikine ñëpp daw ci police ba ne def leen nànk xale bii du jël xale bii du rey xale bii du def nii ba policiers yi ñoom mun leen seede loolu kon mooy doy na waar dem leen Pikine fi mu juddoo ngeen yaroo fa du xale bu jógee Gambie du xale bu jógee Mauritanie du xale bu jógee benn dëkk Sénégal gii la juddoo fii la yaroo fii la màggee papam fii la juddoo fii la yaroo fii la màggee ba génn àdduna yaayam fii la juddoo fii yaroo fii la màggee ba génn àdduna mu jirim waaye nag nekkul xale bu soxla ba war a mën a mu def li mu def ñun ay mbokkam ñu ngi jaale waa kër Fatou bu baax a baax di leen jaale di bokk ak ñoom naqar gi ndax seen naqar la suñu naqar la ñun ñoo bokk pikin ñun ñoo bokk métit gi naqara ñun nañu ba ci kanamu yàlla ah. su doon suñu sago ah kooku dara du ko dal sax ba suñu doom di di di bokk ci lii waaye nag li ñu mën a seede ki suñu aqulaay tàlla ñëpp mën ko seede ci pikin ikotaaf boobu ci garage clando yi mu doon ran ci fépp mooy xale boobu ah ndogal am na de waaye du xale bu rey de du xale bu bon de du xale buy tox du xale buy naan du xale boo xam ne dina siggi xool nit ba pare arts martiaux yooy ñuy wax maître kung fu maître kung fu boobu li ko ko def kung fu boobu bi mu ciy dugg dem na ba nekk mag dem na ba am ay dix ans dañ dóor ci mbedd bi muy jooy bay bëgg a dee su ñëwee taxaw ci bunt bi yaay ji ne ko demal fayu wala doo dugg ci biir kër gi looloo tax finalement ñu dugal ko pour mu def benn art martial pour mun di mën a défendre boppam waaye waxuñu ko woon défendre bi pour mu rey ci kenn loolu taxul woon euh, nit ñi jokk ñu ngi jéggalu nag man mi maa ngi jéggalu ci famille am yëpp yëpp yëpp yëpp ñu ngi jéggalu ñu ngi tuub ñu ngi jéggalu du ñu ñaan dara nguur dañuy bàyyi ñu def seen devoir parce que ñun ñëpp ay sénégalais lañu kooku ñu rey bakkanam googu moom gënul bakkanu ki ko rey kon nag comme ndogal am na nañu leer daal ba leer mooy na gouvernement xam na procureur xam na ñëpp ñëpp xam waa kër Fatou Mactar Ndiaye boobu soo fa demoon interviewé leen xëy na dañoo am naqar dañoo am lu leen bett dañoo am lu leen jaaxal dañoo tiit mais ñoom dama nga interviewé leen nga leen leen xale bi nan la mel maire bi xaas bu ne la ko doon yónni fu nekk la ko doon yónni kon maire bi amoon na confiance ci moom te ñooñu nag ay politiciens lañu du ñu tëb rek am confiance ci nit dañ koy xam di ko jàng di ko seetlu ba mun a am confiance ci moom. واكرم نيوني منال سيدي خالي بو يارو لا خالي بو دول خول نيت خالي بو دول واخ خالي بو امول بن بروبليم يينا وين نيل لولو نا يينا وين نيل لولو بن يون ماغي جيغلو سي برو فامي بي دي ديلو وات دي جيغلو دي جيغلو بو باخ باخ باخ يالا يالا دول سي ترو témoignage témoignage fait témoignage mom la ki ni uh-huh. ndaw sey ñu rendi fele ci pikine ndeysaan ka ko reen di uh-huh. waa ji uh-huh. kii di wax mbokkam la dëgg la waaw waa ji mbokk waa ji la dafa am uh-huh. témoignage bu muy def ci waa ji ndeysaan waaw parce que soo gisee temps yëpp mbokk ñee ñooy wax mais mbokk waa ji am na ko ma ci tajeel ba waxtaan ak man am yu ma wax ci waa ji ñu dégtal ko askan wi ñu ñu ñu déglu asalaamaaleykum Ndoye man dama ñëwoon pour témoigner ci meurtre bi nga xam ne amoon na Pikine muy xale bu góor bi nga xam ne dafa rendi meer bi jam doomam euh, ñu ngi masu waa kër googu di leen si gën digaale bu baax a baax ndax ñun ñëpp ñoo bokk naqar googu ñun ñëpp ñoo bokk pikin su doon suñu sago loolu du am bay am ci suñu njaboot ndax xale bu góor boobu def loolu sama xeet la sama mbokk la sama rakk la muy xale boo xam ne tamit suma jëlee téléphone di wax bay sañ a témoigner mooy suñ ma woon sax ma teg sama loxo wax li ma ci xam su dee dañuy def peine su dee neexee tàmbale ko ci moom waaye nañu xam ne nag innocent rey na xale bu baax rey na xale bu dul tux du naan amul fréquentation bu bon rey na loolu nag la yàlla dogaloon ci jëwam ñun mënuñu koo dindi nit mënu kaa dindi ndax meer boobu mu rey mère boobu féete na ko fu ne mère boobu defal na ko lu ne bàjjanam bu bokk papam ndey ak bàyyi moo ko jox mère bi pour mu dawalal ko te bàjjanam googu xaritu meer bi benn bakkan la te bàjjanam googu ko jox mère bi su ko leeroon ne kim koy jox day ëlbatiku rey mère bi wala dina fa def lu ñaaw du ko ko jox ndax borom jom la xale boobu nag du siggi xool nit xëy na nag def na loo xam ne moom xamu ko parce que trois cent mille yooyu jógewul ci euh, famille boo xam ne ay baadoola lañu trois cent mille yooyu su ko laajoon ay magam nu jox ko su ko laajoon bàjjanam mu jox ko su ko laajoon nijaayam mu jox ko su ko laajoon meer boobu mu rey maire bi jox ko loolu ñëpp seede neen ko loolu ñëpp xam neen ko waaye nag comme waxoon na ne dina indi trois cent mille pour warugar trois cent mille matul gis na ci armoire maire bi xaalis mu ne naa dem sàcc xaalis bi waaye bi muy dem li leer ba leer mooy paaka boobu mu gànnaayoo woon du pour rey meer bi moom moo ko tax a dem daf ko yóbbu woon xëy pour su dee am na lu muy dajji mu dajji ko su dee am na lu muy ubbi mu ubbi ko waaye pas pour rey meer bi ndax meer boobu fu ne féete na ko fa ngoram nag meer bi jàpp na ko gis na ko xëy na mu bañ meer bi yuuxu ñépp xam ne moom daa doon sàcc meer bi moo tax mu def loolu mu def waaye ki nga xam ne dafa rey ñi indi ñëpp daw ci police ba ne def leen nànk xale bii du jël xale bii du rey xale bii du def nii ba policiers yi ñoom mun leen seede loolu kon mooy doy na waar dem leen Pikine fi mu juddoo ngeen yaroo fa du xale bu jógee Gambie du xale bu jógee Mauritanie du xale bu jógee benn dëkk senegal gii la juddoo fii la yaroo fii la màggee papaam fii la juddoo fii la yaroo fii la màggee ba génn àdduna yaayam fii la juddoo fii la yaroo fii la màggee ba génn àdduna muy jirim waaye nag nekkul xale bu soxla ba war a mën a tax mu def li mu def ñun nag ay mbokkam mi ngi jaale waa kër Fatou bu baax a baax a baax di leen jaale di bokk ak ñoom naqar gi ndax seen naqar la suñu naqar la ñun ñoo bokk pikin ñun ñoo bokk metit gii naqara ñu nañu ba ci kanamu yàlla ah su doon suñu sago ah kooku dara du ko dal sax ba suñu doom di di di bokk ci lii waaye nag li ñu mën a seede ki suñu aqulaay tàlla ñëpp mën ko seede ci Pikine Icotaf boobu ci garage clando yi mu doon ran ci fépp mooy xale boobu ah ndogal am na de waaye du xale buy rey de du xale bu bon de du xale buy tox du xale buy naan du xale boo xam ne dina siggi xool nit ba pare arts martiaux yooyu ñuy wax maître kung fu maître kung fu boobu li ko def kung fu boobu bi mu ciy dugg dem na ba nekk mag dem na ba am ay dix ans koy dóor ci mbedd bi muy jooy bay bëgg a dee su taxaw ci bunt bi yaay ji ne ko demal fayu wala doo dugg ci biir kër gi looloo tax maa ñu dugal ko pour mu def benn art martial pour mun di mën a défendre boppam waaye waxuñu ko woon défendre bi pour mu rey ci kenn loolu taxul woon euh, nit ñi jokk ñu ngi jéggalu nag man mi maa ngi jéggalu ci famille am yëpp yëpp yëpp yëpp ñu ngi jéggalu ñu ngi tuub ñu ngi jéggalu du ñu ñaan dara nguur dañuy bàyyi ñu def seen devoir parce que ñun ñëpp ay sénégalais lañu kooku ñu rey bakkanam googu moom gënul bakkanu ki ko rey kon nag comme ndogal am na nañu leer daal ba leer mooy na gouvernement xam na procureur xam na ñëpp ñëpp xam waa kër Fatou Makhtar Ndiaye boobu soo fa demoon interviewé leen xëy na dañoo am naqar dañoo am lu leen bett dañoo am lu leen jaaxal dañoo tiit mais ñoom dama nga interviewé leen nga leen leen xale bi nan la mel maire bi xas bu ne la ko doon yónni fu nekk la ko doon yónni kon maire bi amoon na confiance ci moom te ñooñu nag ay politiciens lañu du ñu tëb rek am confiance ci nit dañ koy xam di ko jàng di ko seetlu ba mun a am confiance ci moom. واكرم نيوني من نلسي خالة بو يارو لخ خالة بو دول خول نت خالة بو دول وخ خالة بو أمو بن problem يينا وينيان لولو نا يينا وينيان لولو بن يول ما عندي جيغلو تي برو فامي بي دي دلوار دي جيغلو دي جيغلو بباخ باخ باخ يالن يالن دولو شترو